xam naa moo dinañu officiel photo Cheikh Tidiane Ndao mi nga xam ne daal démb ci waxtu wi bokkoon na ci ñi sénégalais yi seen xol tàngoon ci moom ñu ni daal la mu wax dafa ëpp waaye nag la mu wax it ci waxi jàmbur la ko doon toxalee bari na du mu fàttali wax ko ci Ousmane Sonko tey jii nee nañu euh, dikk xëy na ni ko nuus teg ko ci barab di lijjanti mbiram. Mm-hmm. waaw. am na solo Cheikh bi de wax dëgg yàlla boo déggee mu wax am na solo xamante ni waxi paa bi la nekk même na xam waxi boppam la. ndax bu ne waaw pour man lépp nee na la ñuy biñ toogeeg léegi recevoir nañ ñetti góor jigéen. waaw loolu la la wax. moom sax ñii ay góor jigéen la leen tuddee. waaw dañuy recevoir nañ ñetti góor jigéen. après expliquer ay kii ba àgg te ni sax dégg naa diw naan daa wax waxe boppam ba pare. daa ne est-ce que dégg naa sax ñu naan nee nga mais daal. Hmm. loolu lépp lu si mën a am léegi mooy nii nga xamante ni nii la doxe hmm. noonu la doxee ndax am réew. Hmm. dama ko daan wax buñ mas buñ toogee ba kuñ jàpp Sénégal yëpp maase ni kii ñu jàpp waruñu koo jàpp. kooku kenn waru koo jàpp mais bu ñu demee ba Sénégal yi yëpp taxaw naan lii du dëgg du yoon ñi dañ ko war a corriger baa ñu corriger suñu bopp ñoo xamante nii dañuy toog dañoom waxuñu leen dara mais kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati ko teg ci société bi mu naqari leen bañ nar ko fajal seen bopp yoon nag bu jógut dañ ko war kii far pour yoon jóg régler loolu yi mm-hmm. ak kum mën a doon boo waxee loo xam ne waroo ko wax dañ laa war a woo ni la lii nga wax foo ko teg mm-hmm. bu dee wax joo xamante nii wax ju yamamaay la wala njuum te ñoo xam ne kii daa juum ñu corrigé la mais bu dee waxi ñàkk kersa wala muy waxi reewande wala muy waxi politique wala muy waxi jaay doole wala muy wax joxaan dafa am lu nekk si ginnaawam ñu jël la teg la nee ba lijjanti say mbir ba pare. loolu ak ku mën a doon noonu lañu war a def ndax wax ji ñuy wax yi si réew mi dañ ko war a bàyyi dañoo war a jublu si liggéey bu ñii di liggéey nag buñ gisee ñoo def nañ lu ñu war a def ñu taxaw ni carrément li ngeen def waru leen ko def waaye leen warut tax ñu leen wax leen loo xam ne waruñu leen koo wax même bu leen luwaa bi bu ko bu ko luwaa bi kii bu leen luwaa bi épeng bu leen luwaa bi tëriwut kenn wax leen sax kenn waru leen wax dara yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg si doomu aadama elaase ngi nii da ko daan bañal président Macky Sall waaw da ko daan bañal ñu ànd ak président Macky Sall mm-hmm. da daan toog fi daan ne man anduma ci ay saaga anduma ci wax loo xamante ni moom sax jekk noonu la daan wax kon loolu nag ba léegi ni dafa walaabal anduñu si ay saaga moom nit ku baax doo ci ànd kenn àndu si nga yëkkati ay saaga di ko jëmale si kenn ku mën a doon rawatina nga doon kilifay réew mi mm-hmm. kon yoon bu jógee ci lii nañu siifur ñëpp code siifur ñëpp képp koo xamante ni wax nga dara ñu woo la ne lii nga wax ni kaay réglé ko mm-hmm. comme que nag ki daan woote mi ngi fi ba léegi nag continuer woo ñi nga xamante ni daan nañ wax yu mel nii ñu woo leen ñoom ñëpp ndax bu ñu leen bàyyi société bi dañuy continuer de. kii rek moo ciy war di wax. ah non non ñi waxoon ñëpp seen vidéo yaa ngi fi. non loolu nee woo Macky Sall na ko. Macky Sall Macky Sall. anam. non woo effacé na ko. ah baax na joxe hélas. déet yaa ko waxoon yaa noonu lépp Macky Sall effacé na am na yu mu effacé. am na yu mu effacé. asan daa mel daa ko li nga li nga defoon pour yàq réew mi. ah loolu la ñu effacé yàq réew mi la mais diggante nit ak nit. Ah. loolu kay yàq. ah li ñu defoon pour effacer pour ah, yàq réew mi. pour yàq réew mi. loolu lañ effacé mais président Ousmane Sonko mii am na ay pelent yu bëri yoo xam ne mi ngi si kii procureur. waaw te yooyu xam nga nañ ko. lemmi ba ak na ko. non non loolu bokk si. Hmm. dañ ko waxoon dara ko naqari mu dem def plainte. ah loolu ma nga fay tege. ñaata ñaata plainte la waxoon ne ma nga fa yooyu xam nga ne dinañ ko lemmi. heure daa jotagul rek kon nag ñëpp nañ ànd ak dal te xam ne kenn ku nekk sa plainte mën na faa ne. Hmm? waaw wow. kon bu fi kenn nekk fipp na ñëpp dal te xam ne ku ne sa pelante mën na faa ne te kuy demit bu amul preuve bu àggee da toog de. Hmm. waaw dañ lay daajal ban. dañ lay daajal ah, waaw yaa tooñ yaa wax lu amul preuve. bërki démb am na ko ma woo naan ma kaay ma jox la benn information si benn am de affaire affaire yooyu wax ba àggal ma ne ko indil ma preuve yi mu ne ma lool loolu du preuve boo waxee ma ne ko déedéet man du ma wax mukk lu ma leerul preuve rek. d'accord ku mu a doon boo ma indilee preuve mu leer mu leer na ma lii Sénégal yi soxla nañ ko war a jar wax. man sax du lu lu ma am preuve wax lu jar wax loo xam ne naa am njariñ lool laay wax waaye lu amul njariñ loo xam ne kenn lijjantiwu ko vie privée jàmbur sama yoon nekku si d'accord toujours yaa ngi dugg ci vie privée jàmbur yi Assane nag moom ba lii ma yow bàyyi da ngay fàtte toujours toujours yaa ngi nii ci kër yoro dugg ci kër Oustaz Mbacke Sylla déglu ma rek dugg ci Baye ma message léegi nee na ma a ngi noonu toog day sos lu mu sos ma ni nga xam nga yooyu yooyu privé yow da ngay fàtte chaque jour ni ci vie privée jàmbur yi nga ne hmm. Oustaz Mbacke Sylla fi wax léegi na ma yóbbu si yoon ba xam ku fay toog. kan ñoom ñooñu mais jaru ko waaye da nga dem maa si yoon fa waaye yow yaa daal si yoon dama leen di yóbbu yow yaa yow yaa léegi ah luñ yàq société bi <laughs> jaajëf Mamadou Ka jërëjëf ak ñiy suivre ñëpp euh, ci euh, YouTube bi gërëmaale waa ji daf mel ni ma ngi kër Baye Mbaye euh, muy kii kan boroom mbuur borom lëmbal yi ca euh, soirée Pape Diouf Lamine Niass maa ngi lay siyaar ba gis naa lëmbal yi nga lëmbal ca soirée Pape Diouf ba alaaji oustaz euh, Ndaw de mujj nañ ko arrêté la ñu xëy wax mooy information bi nga xam daal mi ngi circulé moom nag nañ daal jottali woon ay waxi jàmbur xaw ma nag ndax wax jottali waxi jàmbur yooyu dinañ ko ci génnal yeneen daal waaye nee nañ ñu téye nañ ko waaw xam nga buñ demee nguru nguru nguru nguru nguru président Macky Sall ndeysaan bi ñu jàppee Oustaz bi nekk Sen TV. Hmm. Oustaz Assane. Eh, Oustaz ñu ngi koy nuyu. nga xamante ne bii dafa waxoon président Macky Sall. Hmm. Eh, bu Ousmane Sonko bokkul. <laughs> dëkk bi mën naa loolu xam nga kooku. élection du fi am. waaw xam nga loolu. Hmm. Eh, wax la joo xamante ne bii wax ju rafet la loolu dong la waxoon ñu tëj ko. waaw du dëkk te loolu moonte de euh, ñu bari wax nañ ko mm-hmm. waaye dañ ko cee nendu tëj ko moom oustaz bii nag moom nga xamante ni bii ndeysaan da doon làqatu nee na ci waxi jàmbur pour mën a wax li ci xolam mm-hmm. waaw parce que mook waa ji dañoo bokkul lu nekk ci seen xol ak seeni bëgg-bëgg waaw léegi nag mu bëggoon a làqatu waaye waa digit noonu lañ làqatoo ci waa ji ba làqar ci ay mbiram hmm. waale ko waaw parce que da doon jéem a mën a làqatu waaye waa digg ko gën a mën a làqar ci ah bon waaw làqar ci ay biram parce que moom ndeysaan dama ko yërëm moom li mu ñàkk sax xamagu ko moom waaw travail yu vingt ans la yàq liggéeyam bi mu doon liggéey muy liggéey ñaar boo gisee ñi koy tontu ñëpp ay soppeem lañu woon hmm. am na ñoo xamante ne dañ lay wax ne la bi ñu ko dalee sopp xam naa nag moom peut-être mu dem ba defee ne nit ñi teewlootuñ ko. waaw ah. mais ndeysaan nit ñi nga xamante bi ñoo ko yàgga sopp naw ko. Mm-hmm. Euh, ñooñu rek ngay dégg ñu koy tontu dañuy da ngay dégg ñoo xam dañ lay wax naan la bi ma nekkee daara ja. Mm-hmm. am na ci maire bu nekk bitim réew sax. Ah, gis naa ndeysaan bu nekk bitim réew dafa yónnee woon xaalis pour ñu utal ko kaset yi waaye ba na ko. waaw xam nga. <laughs> Euh, ba ci son bu ni mu ko daan bàyyee xel xam-xam man kay sama kele ba ci oto ba ba léegi moo ca ne waaw xam naa su ma jógee def ci mu nekk koo xamante ni kii tey sénégalais yu bari nawoon nañ ko wallaay waaye euh, moom ndeysaan daf ñoo wanaale mooy kan xam nga nag daf ñoo yàgg wax ay siira yim ñu daan wax siira la de ah. na bawee waaw waaw di ñu wax ay yonent yàlla yuusuf seeni jaar jaar jaar jaar yonent yàlla yuusuf parce que boo gisee li tax ma wax la jaar jaar yoon. yàlla Yuusuf rek mënoon na ko taxawaay ba nga xam ni moom la ñoo ñu taxawee woon. waaw ñamu daan nett li seen ak mbon taxawaay bañ taxawee woon. waaw moom nu mu mën a wëlbatikoo ba taxawee taxawaay boobu. maanaam histoire Youssouf jàngewu ci daara. jàngewu ci daara ndekete moom mi ngi ñuy jàngal te jàngu ci mm. daara daara daara mm. jàngu ko ci. ndeysaan ci tuuma ya. waaw tuuma ya. moom tey yonent yàlla Youssouf dañ ko tuumaaloon de. Mm. te gis nga bu ñuy nettali nam ñu koy nettalee. ok xam naa defe woon ni moom. jàng na ko histoire Youssouf boobu nga xam naa dinaa ko tegaat sax. waaw yooyu histoire Youssouf yonte yàlla Youssouf. Hmm. ndekete moom jàngu ca dara dara dara dara. yaa ngi dégg. Hmm. Euh, te boobu mi ngi ñuy wax na nga xamante ni bii noonu la saay saay sa defoon taqal ko waxal ko lañ ko waxul ba tëj ko kaso. loolu yëpp mu nettali ju ko. ndeysaan xale yu bari nga xam ne seen yaram daw na ci nit ñi jooy nañ ci ak na mu daan waxee. waaw. dëgg yow ustaas bi. Eh, wan la ni muy waxee dëgg ni mu doon wax yooyu yëpp doon jël rek. wan xeen la mën naa waxee ndekete xam dafa benn waaraatekat bu doon wax daan benn waaraatekat waaraatekat bi dafa nekk yi di waaraate quoi. Hmm. mooy gaaru gaa yooyu daan wër rek waaye jékki-jékki rek yëkkati kii bi ne kuñ ma tuddee kuñ ma tuddee xam nga maam Cheikh Anta Mbacke borom kii ndekete waa ji Basan lañ ko tuddee Aminta Basan. ndekete waa ji duggatu cinéma bu mag la Aminta Basan la ko gaa gaa yi di woo benn waaye ko fa démasqué. ne ko Basan. Assane xam nga te boobu mu ngi doon nax nit ñi di leen arnaqué quoi. Mm-hmm. ndekete boobu li ñu nekk moom yëpp. benn acteur la woon boo xamante ni bii rek da daan joué ak gars yi film. Mm-hmm. nekk di ray baat beek kërëb kërëb di def noonu. Mm-hmm. teg boole ko musique arabe yi. xale yi ñëpp di ko déglu muy wax wax joo xamante ni bii wax ju neex la ndekete eh, li muy wax daal ci làmmiñ wi la yam waaye daal amu ci lenn loo xamante ni kii kii na moo tax gis nga maanaam moom dafa détruire boppam moom boppam la yàq waaw mhm. na xam ni dina xam ni te nag euh, di la xamal ne la ñoom ñii nañ sant procureur mhm. waaw parce que ñoom man jàpp naa ni procureur sax loolu lañ njort xam nga pareen saay nga am vision gis li war a ah, xew nga anticiper parce que tée bi ñu leen tée mhm. parce que am na ñoo xamante ni bi seen xol a ngi doon tàng ñu ngi doon xalaat ci ay yeneeni mbir man gis naa sax ñu ne il faut régler ji mbir yi Mhm. parce que lii nag jaratu la seetaan. nañ leen fekk ji ba seen kii. may mun a bëgg sax dégg naa ko mu mer ci lool. waaw mu mer ci ah kon procureur daf leen sauvé. waaw man def naa parce que sauvé est-ce que sauvé wu leen. parce que fi toll nii. peut-être que ni tey bu ñu nekkoon ci seeni kër mën nga dégg leneen. si donc le fait que ñu ne jàpp nañ kii mën na casser rythme bi tuuti ñu ne kee tamit xam naa ci la bokk. ña nga xamante ni peut am na ñu doon préparé daan le fait que ñu dégg ne jàpp nañ waa ji jaxate. seen xol ñu ne euh, seen xol xaw a ñu bàyyi tuuti daan ne bon kon gars yi ñu ngi ci. mais gis nga booy commencé woon nañ. te booy nag wax dëgg fa yàlla dañoo nekk majorité ci réew mi. d'accord kon am na wax yoo xamante ni mën nañu politique quoi. Mm-hmm. mën nañu politique. mën nga bañ a ànd ci gis-gisu président Bassirou mhm. mën nga ànd bañ ànd ci gis-gisu premier ministre Ousmane Sonko mën na sax mu wax nga defar ma ay propos diaboliser mhm. def ni nga xamante ni noonu la war a defee mhm. comprendre nga waaw wax lu la neex yaa ngi dégg yooyu yëpp mën nga ko wax mais am na yoo xamante ni bii euh, ay tuum ay wax yu ñaaw la ko quoi yoo xamante ni bii tamit quand même a nekk ci kii bi mais ñoom dañu dépassé yëf yi macha allah jërëjëf